bu agsee nga def ko bu rawee itam nga fay ko mën nga ko wut ci jàng alxuraan mën nga ko wut ci zikkar mën nga ko wut ci julleek woor mën nga ko wut ci jàng xasaayit sëriñ bi ak rek mboolem yu baax yu deme noonu waxris te nga xir xalal ixlaas yi ca sellal ga wal ixfaay ak nëbb ga añu waraa walis mbindeef yi tum ndax kon def na la tagg la la jësaay fa pay ga fa julluma li ëpp ci li nga xam ne baana feeñ na lëxum ñeel nit ñi minhu ci jëf ja wala yekk suru du bari nafu woo njariñam la xadan ci ëllëg idd yu jitalaa ba def na ko niir nee na del xir loolu rek ci looy def ci lu baax muy wird yi mu wax muy leneen nga di ko làq sa digganteeg sa borom rek kenn bañ koo yëg ndax loolu mooy tax mu gën a sell mooy tax buñ lay fay rek sa xol sedd li ëpp ci li ngay def nit ñi di ko xam ak di ko gis daanaka rek du bari njëriñ bu ëllëgee ndax benn sell ga jafe baa bu fekkee selloon na itam boo làqu woon sa diggante sa borom rek kenn bañ koo yëg la pay gay ëpp yi mu la wax nag ci bunt bii ne la nga di ko fecclee sa waxtuy féex ndax sa dund lépp di njariñ dana ko teqale leen lu ci nekk mu beral ko bunt waaye nag bala mu ko tàmbali day njëkk indi ay yeete ak ay mottali yoo xam ne da koy delloo ci xam-xam bu am njariñ ndax yittewoo xam-xam bu am njariñ bokk na ci yi ñuy fecclee waxtu waaye daa bari yu koy yàq bu gisee doole gannaaw yeete yooyu ak mottali yooyu dana ca teg rek ab dog bu gàtt bu am am njariñ door a dugg nag ci toftale yi nga xam ne moom la wax ñu mën koo feccalee waxtu yu féex tambihaatun lii ay yeete la watatimmaatun te di ay mottali axrajtuhaa yoo xam ne génne naa leen min addahabi ci téere bi ñuy wax addahab wa xayrihi ak budul moom lii day nee na ay yeete la ak i mottali yoo xam ne dama ko génnee ci téere bu ñuy wax azzahab ak yeneen bëgg koo doll ci laa doon wax ci xam-xam bu am njariñ nga mën a ràññee tegtal ya mën a xàmmee xam-xam bu am njariñ ak ba amul njariñ xultu wax naa ne laqad xarra war na allah ayinu ka ñu rëbb annaasa nit ña washtaxaloo te ñu soxlawoo bi maa ci loo xam ne ya jurru dana ñor di albaasa ay wa albaasa nag mooy cosaan waaye albaasa lañuy jàng ci way wi ndax mu tolloog annaasa jële washtaxaloo te ñu soxlawoo bi xel bi maa ci xam loo xam ne laa yenn toxam du jëriñ fil xabri ci bàmmeel wal xasri ak pang ba wama ak loo xam ne laa yedd faxu du jiñ an hum walis ñoom xazaaba rabbihim mbugalug seen boroom yowmal jawaa ci bisum njàqare ba woon xamakoo te ñu muuru fil xafalaati ci ay càggante wal xawa ak bànneex li may njëkk wax de nee na mooy seytaane muy iblis nax na rekk nit ñi ba nit ñi diitewoo loo xam ne da leen di indil rekk ay ba tey seytaane nax na nit ñi ba lañ yittewoo xam moom benn du doon xam-xam bu am njariñ mbaa boog dana am lu ca làqu loo xam ne moo koy tey am njariñ ci ñoom luñ cay séentu ci njariñ rek duñ ko ci gis mukk-mukk du ci buñ duggee bàmmeel du ci buñ taxawee bis penc xam-xam bu ñu daan jàng rek ndax amee ci mucc ëllëg benn seytaan nax na leen ba ñu wan ko gannaaw mbaa bu ñu ko won gannaaw it seytaan nax leen ba la taxan ñu daa ca jariñu di ci amee ak mucc duñu ko ca amate ñu maas rek ci sëgg ci càgganteeg la leen neex fa lay sa kullu ilmi déet bépp xam-xam daxti waay mi boroomu làq nafan njëriñ walaysa kullul xulamaa yi te déet képp ci way xam ni fis ci waay ñu nekk ci yemoo tofil xuloomi nekk na ci xam-xam ya maa loo xam ne yu xas yi dana wawal alxalba xol ba wa yoojibu tamit waral alkibir ak rëy wa yunsi tamit fàtteloo arab ba buur ba ndax ne xam-xam lu ñu ko tagg-tagg ak lu ñu wax ak amam njariñ ka koy jàng ak a xeñtu mën naa yéene yéene joo xam ne mbaa mu melawoo melawoo xam ne xam-xam ba day soppiku lor du ko amal njariñ moo tax mu ne du xam-xam yépp am njariñ du boroom xam-xam yépp ñooyam ndax jëmmi xam-xam ba ci boppam moom mën naa bañ a amee lor waaye nag ci kaw yéene kooka ak melaw kooka ak jëfam rek moo koy soppi ngaañ ci moom mu ne xam-xam mën naa yóbbe nit xol bu wow tax ko rëy ba mu fàtte yàlla loolu nag moom lu yomb yomb la ba ci xam-xamu shariha mi nga xam ne xam-xamu zahir rek la koo xam dafa caa géeju topp ko te gëstuwut xam-xamu tasawuf rek loolu mën na koo taxa yëg boppam lool tax ko amuk rëy lool defe ne dal nay àgg ca àgguwaay ba moo jiitu ñëpp ku xamut la mu xam rek xamul dara ku nekkul ku nekkul yëngatu ci la muy gëstoo ko yëngatu ci wàllu xam-xamu shariha rek nekkul ci dara bu ca boolee tasawuf nag tasawuf moo koy xamal ne ko xam-xam bi kat lu mu bari bari te jëfewoo ko yaag ku dalagul baa yéene yemoo jëf itam lu mu bari bari te sellaloo ko yàkku jëful dara dara ñoo yemoo soo boolee it xam gu wér ak jëf ju sell te xamagoo sëg mucc ba tey di boole ragal ak yaakaar rekk moo la war moo tax boole yaar yépp amul yóbbal ci xam-xamu shariha muy fiq am boole ci yóbbal ci tasawuf mënu caa ñàkk waxee kasaa ni ki nii fil xulamaa yi nekk na ci way xam ña xawmun aw nit jazaa'uhum ñoom seen pay xadan ci ëllëg xaradan moo di alkande wala wu mun akuko yedd nee na boroom xam-xam yi woote nañu lool am na ci ñoo xam ne bu ëllëgee yaraange ju metti ak alkande rek lañuy fekk fa seen boroom wa fi nizaami cheikhina nekk na ci wayu sunu sëriñ alxilaali te moo di alxilaali radiya yàlla na gërëm an walis ko allahu yàlla bul jëlaali koy boroom màgg mu ne alxil mu dëgg-dëgg xam-xam maa mooy ba nga xam ne ak saba fàggul na boroom xasiyatal xaliimi ragal yàlla mi aji xam fa man xalaa ku wéet min xaa ci ragal yàlla googu fa jaahilun aji réere la mu liimun kuy aji dikkee luñ koy yedde alxilaali wax na ci way wane dëgg-dëggi xam-xam daal mooy xam-xam bi nga xam ne tax na kooka wekk yàlla tey ko màggal ko ba nga xamee ne fu mu toll ma ngi koy bàyyi xel ba du jàdd mukk la yàlla bëgg baa bu ko jàddee daal di tuub fa saa sa dellu ca yoon wa sax rekk ci la yàlla gërëm bépp xam-xam boo xam ne defalul boroom ragal yàlla gu mel noonu rek turu xam-xam baa fa nekk waaye moom ku réer la te ku ñu yedd la bu ëllëgee tuuti wax naa ne fa lay seen fan du jëriñ alxamdu jaam ba xuloomun ay xam-xam yaroomuhaa yooyu dana leen sàkku li xubbi mataxin ngir sopp aw tagg laayu riimu waw du deñ wala lës yi du caageenu ba nga xam ne yutta la bu def na ko sàkku li tasaabuqi ngir rawante awil munaafasati wala appalante kal munaafiqi ni ki ab naafiq li may wax day nee na mooy bépp xam-xam boo xam ne boroom da ko wut rekk ngir bëgg aw tàgg ñu wax ne moom boroom xam-xam la moo fi raw lu nangu kenn ëppale ko xam-xam waaye ngir yàlla taxut daraja ja ak tuwa rek moo tax boobu xam-xam day nee na du amal njariñ boroom wala lësi du caagéenu ba nga xam ne yuttala bu def na ko sàkku li tabaaduri ngir jëkkante ilal fataaw yi jëm ci ubbee ya wal xadaay ak àtte ak daayiri bay aji lor xam-xam du koo koy wut rek ngir ñu fal ko àttekat mu amee ca darajey àdduna ak alali àdduna boobu xam-xam amul njariñ ba tey xam-xam du koo koy wut rek ngir ñu di ko fekk si di ko laaj muy tontu bu fekkee ne loola daraja ja rek la cay xool du am njariñ waaye nag muy jàng xam-xam bi ngir àtte la yàlla bëgg ak jàng xam-xam bi ngir ku bëgg ku ko ca teete xamal ko la shariha wax mu wax ko ko ngir yàlla lu mu ci wut rek te yàlla tax moom mu daal di bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg alqada ak alfatwa dañoo wute ndax alqada mooy koo ko wax àtte bi yoon ba te fekk ñu fal ko xaad yi mu am sañ-sañub wéyal la mu àtte alfatwa nag nga xam ne almufti moo koy def mooy ki nga xam ne moom dañ koy laaj rek lu shariha wax ca loola mu wax ko te du am sañ-sañum nag wéyal ko ca kooka mbaa ci genn wet ni nga xam ne rek moom la sëriñ si féete léegi naka jekk amuñu woon sañ-sañu doxal àtteb lislaam ci kaw kenn da ngay ñëw rekk laaj leen la lislaam wax ñu wax la ko bàyyi la nga dem nag yaay seet na ngay defe kon nag lépp rek mi ngi takku ci yéene ju sell ji fonk ga xam-xamu shariha ba mën a nekk àttekat wala ba mën a nekk mufti di wax àtte yoon yi ñu see jariñu bu ci amee yéene ju sell mu bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg bu ci jubloo addunay kese yàlla kese taxut mu daal di bokk ci xam-xam yi ëpp lor fii ak fële wala lës yi du caagéenu ba nga xam ne yattulu bu foo dana ko sàkku al insaanu nit ka li ajli an yaabudahoo ngir mu jaamu ko ak aqraanu maasiya ba tey nee na xam-xam bu nit di wut di ca sonn ndax rek bëgg jiitu ay maasam ñu di ko topp mel ne ku koy jaamu ndax la mu xam te ñoom xamuñu ko loolu yéene ju ñàkk jaa sell moo yàq xam-xam ba dafa war a sell yéeneem ci wut xam-xam bi ngir yàlla gannaaw ba nag gannaaw ba nag bu ay maasam ñëwee ndaa ñeneen ci jaami yàlla yi mu dimbali leen ca xamal leen te yàlla rek tax wala lës yi du caagéenu xam-xam ba nga xam ne yuf naa def na jeexale bi ci moom ak zamaanu jamono bi wi ci paxum mag walaay bi ak fahum gone yaa ixwaanu yéen bokk yi allaay bu dañ koy wax po moo xam ne daray daray njariñ nekku ca mel ne gone gu war fasu bant di ko dawal allahu nag mooy loo xam ne bu amee njariñ itam njariñ la bariwut mel ne mag mu war aw fas di ko dañal kooko fas dëgg-dëgg la war waaye ndegam mag la tàggatul fas wa defut lu may rek day fo mu ne nag bépp xam-xam boo xam ne dafa yóbbee boroom rek jeexal àddunaam ci po booba xam-xam amul njariñ xam-xam ba am njariñ kay day tax fu mu toll di fàttaliku àllaaxira xelam du nekk ci lu nuroonteeg po wala lësi du caagéenu xam-xam ba nga xam ne yom la udana feesal xalban xol xasadan ci kañaan aw xiqdan wala ak coxor aw kibran wala ak rëy wa yaxramu tam yi xañe alhuda jub wala lësi du caagéenu ba nga xam ne yufdi dana àggale ila tabaagudi jëm ci bañante awit tanajon yi wala xëccoonte daraja awit tanaaqudi wala firéente firéente mooy bu kii waxee lii kee wax lu safaanoo moom dóor ca kaw wala lës yi du caageenu xam-xam ba nga xam ne yufdi dana àggale mbaa dana féetale ila tahaaduri jëm ci ak màgg-màgglu wali takabburi ak jëm ci ak reylu wali taxaasumi ak jëm ci xolonte wala lësiidu caageenu xam-xam ba nga xam ne yufdi dana àggale ilal jidaali jëm ci biijoo wala dàggente maanaam dóorantey lay wal xawsi ak mer wal maqdi akub sànje sànje muy mer mu ñaaw a ñaaw aw xitaali wala xeex sax wala lësi du caageenu xam-xam ba nga xam ne ju jaxalu def na ko def faxan muy ak fiir mu di ak fiir lil xutaamu ñeel pañetum àdduna bil jam yi ci ak dajale wala man yi akuk téye wala nga ne aay muy man ko bii firi tere rek wa iktisaaril kalaami ak baril ay wax day wax rek yu baree bari yoo xam ne day yàq xam-xam mu tegalee ko tegalee mu duggante duggante lool lool xam-xam bu taxee jëmm ji añaane ña xam mbaa ñeneen rek ci jaam yàlla yi mbaa xam-xam ba tax mu amig rëy mbaa xam-xam ba tax mu jekki-jekki bañ kenn ci jaam yàlla yi te yàlla taxut loolu lépp tegtal la ci xam-xam bu ñàkk njariñ boroom xam-xam yi bu ñu jàngee rek ngir yàlla dañuy bëggante soppante dimbalante ci taxawal shariha ak xaqiqa waaye bépp xam-xam boo xam dafa tax boroom xam-xam yi amuk bañante di xëccooy daraja di dóorantey lay bu kee waxee kee wax lu safaanoog moom mën naa am sax seen dënn tàng mën naa am sax ñu àgg ci xeex xam-xam yu mel nii yépp rek lor la waaye du njëriñ te ñàkk yéene ju sell ja ak melo yi nga xam ne moom la ña ko xam melowoo rek moo yàq xam-xam ba nde xam-xam ba moom lépp njëriñ la woon li mujj wax nag ba tey xaw naa dugg ca lee mooy rek xam-xam boo xam ne kooko da koo def muy ak fiir di ci rëbb pañatum àdduna bi nga xam ne lu ñëw rek mu téye du nangu dara génn ko defee nag bari coow lool li lépp daal tegtalu xam-xam bu ñàkk njariñ la da koy waxee noonu rek ndax bëgg xam-xam ni nga xam ni moom la amee njariñ ak ni mu amee daraja teeg ëllëg képp ku ci dugg rek mu ànd ci yéene ju sell te fexe ba doxee ca yéene ju sell ndax mu am ca njariñul teeg ëllëg ba li fi nekk naafixul xilmi aji jëriñu xam-xam ëllës yi mooy ba nga xam ne xaddaxal la ma xamal na fatan ascam xoyoo ba nafsihi sikki ba kanam mooy sikki boppam faxalima te mu xam ko wa jarraxoo te mu ñoddi ko li sabri jëm ci muñ wa saxaay ak tabe wal xilmi ak lawet wal ixlaasi akuk sellal wal xayaay ak kersa wa sidxi akuk dëggu wala dëggal wal xalwati akuk wéet wa tafakkuri ak xalaat bil qalbi ci xol wa nadari ak seet wat tadabburi ak seetantal wali taxalluqin ak jëm ci jikkoo bi xurxin ci jikko xasalin ju di aj rafet fi sirri ci lu nëbbu wal jahri ak ci lu bir bi xayril ixaani ci lu dul ay mbañeel ixaan jamxu la maanaam mooy ëmbal kenn ak mbañeel ak noonoo wa jarraxoo te mu ñoddi ko lil xaw fi jëm ci ragal yàlla wa tawakkuli ak wakkirlu ci yàlla wa zodi ak tëddu àdduna wa rajaay ak yaakaar wa tabattuli ak beddi ko ngir jaamu yàlla wa axrajati mu génne alxirsa xir maxal tifaatin ànd ak gestu il wara jëm ci mbindeef yi fi ayima awxaatin ci yumu ci waxtu wa axrajati mu génne alxasada kañaan wa takabura ak réylu wal xayya ak réer wal xiqda ak coxor wala ak noonoo waa xojiban akuk aaw mooy gis boppam naw boppam xad jaraagog daw na mooy xew na wa jarraxoo te mu ñoddi ko ilaa nasihat njëm ci laabiire abadan faaw wasilatin akuk jokk lil muslimina ñeel mboolem jullit ñi li samadi ngir yàlla muy jublu ci aajo ni mu tegalee woon ay bayit yu bare bari wax ca yay yàq xam-xam noonu la tegaleewaat ay bayit yu tegaloo tegaloo te takku wax ci xam-xam bay am njariñ na muy mel mu ne xam-xam bi am njariñ day mooy bi nga xam ne dafa xamal boroom sikki boppam mu taxaw temm ci faj ko fàtte sikki jàmbur yi sikkus boppam doy ko sëkk sëkk xam-xam bu am njariñ day yóbbu nit rafetu muñ ak tabe ci aw ñaqam tabe ci alalam tabe ci xam-xamam xam-xam bu am njariñ day yóbbu nit ci lewet ako sellal nga xam ne lépp lu muy wax ak lu muy jëf yàlla rek ay tax da ko yóbbu ci kersa mu amee kersa ak rus lépp loo xam ne yàlla gërëmu ko da ko yóbbu ci ak dëggu lépp lu muy wax muy dëgg ci moom lépp lu muy jëf muy dëgg ci moom da ko yóbbu ci nangoo wéet di xalaat di seetantal ci lépp lu koy taxa am ngërëmal boroomam xam-xam am njariñ day yóbbu nit ci amee jikko ju rafet rafet nga xam ne ci biir ak bitti la jikko jooy rafet du ëmbal kenn ci doomi aadama yi lu nuru ak mbañeel xam-xam am njariñ day tax nit amuk wakillu wakillu mooy taxaw temm ci sabablu lu baax di sori safaan ba te xam ne nag yàlla ci boppam moom mooy sottal jaam bi moom fàggu rek la am waaye nag sottal ci yàlla la nekk nga xam day sabablu te du wékk xolam ci saw ya muy jàpp di wékk xolam ci coobare yàlla ak mbaaxam ak ngëneelam xam-xam am njariñ da yóbbu nit ci wan gannaaw lépp lu bokkute yàlla lu bokkute yàlla rek woyof ci moom bi ne dëddu àdduna jubluñ ci wan gannaaw àdduna rek benn yoon déedéet na ci yëngatu di taxaw temm ci wut lu leew ndax sàkku ca ngërëmul yàlla ci dëddu àdduna la bokk ndax dëddu moom mooy rek ñàkk a jàpp àdduna ci xolam la mu yëngutu ci àdduna ci ay loxoom te julli ca am ngërëmul yàlla loolu bokkul ci àdduna ci àllaaxira la bokk waaye nag bu xasee geesu àdduna àdduna ñor ko rek àllaaxiraam ñoru ko doonte sax yëngutuwul ci àdduna kon booba sori na ak dëddu ba tey xam-xam bu am njariñ day tax nit ki boole ragal ak yaakaar ragal ak yaakaar dañuy yaari laaf yoo xam ne moom la jullit bi war a amee di leen naawee ndax ragal gu ëpp day indi naagu yërmande su ragalee ba ëpp ba jàpp ne moom ëllëg du mucc day tax mu ñemee song bakkaar yi te néewal ak topp yàllaam ndax moom jàpp ne rek ëllëg moom ndegam lu mucc lu ko raw fii rek ci àdduna raw na ko ba noppi te du ko dabu ca alaxira yaakaar itam bu ëppee nga xam ne moom jàpp na ne mucc rek lay def ndax yàlla yërmande moom ëpp na mu fayantoo ci jaamam loolu day tax mu bari ay bàkkaar néew ay topp yàlla màndargam ragal yàlla nag mooy rekk di moytu lépp lu yàlla aaye te séentu ne lépp lu yàlla mës a tëkkoo ci ku def la mu aaye yàlla dana ko baaxe musal ko ca yaakaar it mooy farlu ci lépp lu yàlla bëgg te rafet njort ci ne lépp lum ca digge rekk ne ku ko def mu defal ko ko dana ko ko defal kon boole rag la yaakaar mënta ñàkk xam-xam bu am njariñ te yóbbu nit ci di bari la beru ak a beddiku ndax gën a mën a jaamu yàlla ndaxte yu baax yu baree bari ci wéet la koy gën a mën a defee bokk na ci màndarga yi xam gu am njariñ boroom xam-xam ba ñàkk xër ci dara lu bokkut ak yàlla xër ci yàllay kese bañ a xër ci leneen ba tey xam-xam bu am njariñ day génn ci nit ki geestu mbindeef yi geestu mbindeef yi yaar la benn bi mooy du leen geestu ci def la yàlla digle ak bàyyi la yàlla tere la yàlla digle moom bu leen gisee ñu koy def mu ànd ca ak ñoom buñ defut it moom mu def la yàlla tere it bu gisee ñu koy bàyyi mu ànd ak ñoom ca bàyyi ga bu ñu bàyyiwut moom mu bàyyi ñàkk a geestu ba ca des nag mooy mbirum yépp da koy wékk ci yàlla xam ne yàlla mooy def mooy dindi du mere menn mindeef du xarab menn mindeef de ndax day xam ne ca dëgg-dëgg kenn rek moo fi nekk ak jëfam nit ñi dañu leen di wëlbati ñu wëlbatiku waaye du ñu wëlbati seen bopp kon nag xam-xam bu am njariñ day génn ci boroom gestu mbindeef yi du gestooti menn mbindeef ci wenn wenn waxtu xam-xam bu am njariñ day tax kooka sori luy nuru kañaan ak luy nuru ak rëy ak luy nuru ak xamadeeku mbewte ak lépp luy nuru coxar ak bañ kenn te yàlla taxut day tax itam mu sori lépp luy nuru naw boppam gis boppam ci genn wet la mu ca mujj wax nag ci njariñul xam-xam moo ca gën a réwati mooy xam-xam bu am njariñ te tax nit ki sopp mboolem jullit ñi te yàlla tax di leen laabire ak a jokk ak mbokk ko xaritoo digganteem ak jullit ñi fu mu toll te yàlla rek rek tax kon nag andi na fii melo yu bare bari yoo xam ne ñooy tekkale xam-xam bu am njariñ di ko ràññeeleeg ba nga xam ne amul njariñ falañ mu xam-xam in lam yufdi ndéem àggaliwut shaxsan jëmm lil xudaa jëm ci jub fa innahu naka moom yee jurruhoo dana ko ñoddi ila radaa jëm ci alkande xam-xam moom nee na li muy am am njariñ lu doya doy waar la ndax xam gu wér ba noppi itam mel ni ku xamut mucce ni nga xam ne moom la ku xamul di mucce lu jafe la xam-xam moom manees na ne su yóbbuwul boroom ci ak njub akut baax faaw rek mu ñoddi ko jëmale ko ci alkande jëmale ko ci yàqu ak yàqale qaala al imaamul Ghazali nee na wa man ahaana ku dimbale man ka nga xam ne xadikta sa ba fàggu na ilman xam-xam wa ma talaba ti sàkkuwu ko li xëyri duniyaahu ñeel lu dul addunaam ngir lu dul addunaam fa innahu naka moom shaarakahu bokkaal naag moom fii maa ci la nga xam ne janaa tooñ na ko kaba yaxi say fi ni ki aji jaay jees yi li lissin ña ab sàcc kamu na bopp nëbbu na alxasaali nee na boo fekkee kuy wut xam-xam te yàlla taxut boo ko ci dimbalee ni ki jàngal ko mbaalu ko nuru day mel ni kon yaa ngi bokk ak moom tooñaange ga yaa ngi bokk ak moom bakkaar ba mel ne ku fekkan kuy def ak li xóor mu jaay ko ngànnaay ni ki jëras yi jamu koy defe ñoom nag booba dañ daan def kuñ gis mu ne day sàkku xam-xam ñu xool ba xam daañu gis ci moom yenn tegtal yu wane ne moom mi ngir yàlla rek moo ko tax di wut la muy wut su ko defee ñu dimbali ko ca buñ gisee lu nuru ne moom kat ngir yàlla taxu koo jóg ñu daldi ko yebal mu seeti feneen fal ilmu xam-xam laa bi kasrati riwaayati diir bi nekk ci barik nettali bal li fi nekk innahu naka moom nuurun leer la maxat diraayati ànd ak xàmmee xam-xam kat nee na du rekk xam lu bare bari loo mën a nettali dëgg-dëggi xam-xam leer la gu yàllay sànni ci xolub jëmm ji mu daal di amuk xàmmee ba nga xamee ne xolam fu mu toll day teewlu màggaayu yàlla nga xam ne wekk ga muy wekk yàlla ak màggal ga mu ko màggal ci xolam day dox digganteem ak jege dara loo xam ne yàlla gërëmu ko loolu mooy dëgg-dëggi xam-xam xam-xamu diraaya boobu nee nañu daañu ko wute ci yett ba ci njëkk mooy fu mu toll bàyyi xel ci dee xam ne moom lu yàgg-yàgg mënta jar fenn ba mucc ca la ca topp muy ñaareel bi mooy bàyyi xel bàmmeel lu yàgg-yàgg gaaw ak yéex a ci yam waaye mënta jaar fenn ba wetu ko mbaa mu jéggi ko jàll la ko ñetteel nag mooy dekkal ga ak fay ga ay jëfam la mës a jëf lépp nekk ci kayit ñu jox ko ko mu jàng ko xam ko lu mas a wax mbaa sax muñ gu mas a muñ rek sax ci gimiñam dana ca feeñ benn muy jàng di bég ak a muñ wala muy jàng di jooy ak rët nee nañu di bàyyi xel yett yooyu dana tax am leeru xol dana tax am xam-xamu diraaya